jërë ngeen jëf mbokk yi tey dimanche 14 août 2022 Jamaïcain woo ñu fi Fils de Balla Gora Sock arbitre bi sifflé na génn seen diggante. drapeau Sine Cissé bu Sine Babacar Omar Diop. Gora Sock moom bàyyi ko jàmbaar ci defet la mujj moog Tyson 2 Fils de a jóge ci victoire général Malek la mujjee daan nekk ko baa bu dara neex Omar Diop. combat la boo xamante ne ni ñaari mbëri dañoo ñemente. moo tax combat bi damaa gëm ni combat buy gaaw lay doon. gis nga xeex loolu door na Gora Sock mi ko bëgg a Balla Gaye moo indi fils Balla. Papa Sow moo indi Gora Sock. ah loolu gën a waay dër la ak parcelle yàgg naa nekk dër bi. eh xeex nan de Balla door na fi. ña ngay xeex door nañu jàppante. waxoon nañu xale dama ñemente. normal combat poids la war a mel. mi ngi neex de. bëgg naa lii man. xoolal xoolal salle ñëpp a ngi jóg. parce que dañoo ñaari poids lourd la. bu ñu xeexee mu ñaar bu ñu fekk ji beneen chambre VIP bi. dañuy déclenché kër ku daan dina baax looy sa carrière Gora Sock Fils de Balla damante baaraam ku ci nekk am nga envie. en tout cas kenn ku ne yaa ngi ci combat bi ñoom ñaar ñëpp tegagu leen combat bi ci yoon waaye boo xoolee Gora Sock moo sut waaye ëpp ko de yaa ja jàppoo jàppul Fils de Balla dam na Fils de Balla am na ngem mais Gora Sock amul ngem. Gora Sock ma ngay dindi fa bee fàq na ko. waay laa xëy loolu li neex na de bëre bu sew. Omar Diop bëgg naa lii de. fàq wi la fàqoon général Malika. waaw da koo fàq pare boobu akul bi mu defoon général Malika ak bii bokkul. daa fàq général ko. bii góor a soog a dafa xaar. waaw daa xam ne loolu la bëgg a def moo tax xam na ne da koy moo tax mu bàyyi ba mu fàq gis nga door na. a soog loolu léegi de. jël na kuure la ilaha illallah jël bu rëy. gis nga Balla daan na ko gis nga Balla Fils de Balla. non non non. kay kay. eh wuy ma. kay jéem a bi ngeen bëri. jéem a bi ngeen bëri. bagage suñu dëkk normal loolu teg teg ko loolu teg teg ko yóbbu lépp lépp da leen màgg Balla ngeen ko yóbbu ngeen ko teg ci defal ndànk bu leen ko yàqal ndam li mën a yóbbu fii sa Balla ci waay li ngi di siyoor waaw doo bëree mais yéen dañu may tout aussi comme ñu leen ñu leen xelal mënuma li muy gis nañ ko. Balla Gaye Abdou Diouf Aliou Seye 2 lii mooy waaw bàyyi lii seen yeneen yi jarul dindi jarul indi yeneen yi jarul dindi bàyyi ko gis nga Balla ñëwal tuuti ci ni nga bëree góor a sox parce que daa wooye woon Balla maay sant sama papa Père Diaw démb dafa maa woo gërëm woo ma téléphone waxoon man 13 minutes na ma góor a sox mu bëri moom ci loxo ni ma bëree noonu mu waxee noonu laa ko day taw sax day taw ni nga bëree góor a soog ni ngeen bëree man damaa mën a bëree ah. xale laa damaa mën a bëree ah. xamaguñ ma nag Yékini laa soxla Yékini Junior ah, mu bëree teel a maa ngi sant waa eh, eh, Guédiawaye bi yëpp aw ma sant. bi. yombul du yomb mënul yomb combat bi mënul yomb. combat bi mënul parce que ñun Guédiawaye. Mm. boo bëggee dëgg-dëgg boo gisee ni ñu doxee ñaari combat yi nga xam ne am nañ beneen taxawaay parce que lu dul dëgg du yàgg lu dul jàmm jàmm ko gën dama ne la benn bis ñun amuñu lu ëpp Balla gay de Lac de ñëw guy gi ñëw ñu am coow yi am kenn ku ne toog sa coin mais lara nga gis ci diggante même bu dul sax bëre lan nga gis biñ dalee ànd ba tey lan nga gis. Guédiawaye dafa amoon beneen taxawaay Guédiawaye naay ku ñu gis da ngay kontaan loolu moo ñëw ba ci làmb ji Fils de Balla bi mu bëree bëriwul ak perfection parce que Balla Gaye mi ci ginnaawam bokk ak moom contact ba combat Balla Gaye jàll mu contact ak euh, làmbam da ñëw te Balla Gaye avant mu ñëw am na lu mu ko wax Balla Gaye muy gëstu gis ko man mu gis ma kon Fils de Balla perfection lay am. lii rek la Balla Gaye war a def. mënoo di bëree di daan di daanu say njaboot xew la ngay toog ci sa kër. tey jii bi mu ñëwee dafa nu dolli doole ñun dawunu dara et puis maa ngi leen di ñaan yéen sud bu ngeen ñàkkoon ci réew mi du baax waaye mboolam koo xam ne yaa ngi wër wax ju bon ñun ñëpp ay jaami yàlla lañu te lu def ëllëg la yow man xiyaam dana ko layoo guy gi ma lay xamal ni la def nga grandeur buur Siteu bu topp ci sa gannaaw fan la jëm kon li am solo mooy mboolam ku ñëw bëgg a détail ak yow détail jeex na su combat mag booy ñaa amul wax fii ak fukki fan ak juróom duñu ci wax mais combat bu jëm juróomi weer nga bëgg a wax juróomi weer yi maa ngi koy ñaan buuse di ko ñaan liiru jaan ku nu laaj combat wu booy ñang ak Balla Gaye nan lay demee yàlla baax na mooy daal combat bi fii ak desul fukki fan ak juróom ñun waa géej waay du ñu wax jërëjëf. non non non waaw waaw c'est que c'est waaw comme li ki loolu ñun ñun géej waay ñun amuñu problème tey ñëw ci géej wala ñëw ci bis ci kaw ñu ànd. ci kaw ñu ànd. voilà mais léegi loolu moo fi jeex. ay guy gi Balla man coow lépp man la <laughs> man waxoon naa ne ko man maay maay indi coow li maay defar. te Balla Gaye bi ma toogee moom xam na ne maay indi maay defar. li des nag nañ xool suñuy rek ak suñuy rek. man bu fekkoon bi may bëri rek fii. Balla dafa taxaw déema ci nopp wax ma benn wax. kon rek rek kenn waxatu ko. mais kenn ku ne jaar fenn. mais loolu tubaab bi naan il faut reculer reculer pour se tamer déwén loolu moo ñu daal ñun. dañoo reculer pour déwén bu ñu ñëwaatee. ñëw nañ sote nañ. dem nañ na sote nañ. léegi li ngeen bëgg am ko mais amaguñ lépp mais dañ am day amaat tuuti parce que des na ñaari combat uh-huh. waaw des na ñaari combat uh-huh. waaw des na Boy Niang ak uh, Eumeu Sène des na Marley suba ñi ngi yàlla uh-huh. Baye Ma Ndiaye yàlla may ko ndam combat Marley ñëwagul woo na ma démb sax dama expliqué ne ma taxaw na ma ne ko sunu combat te bu bakkan Balla Gaye lu mu mës a def bisu tey bii ci gën a riche mbanul jiite géejaway mbëri ji bëri mu di leen dooleel muy toog këram ci lamb ji la amee teranga lu mën a xew na ñëw nu ànd ak yàlla lu ñu yàlla jox ñu jël gàcce ngaaraama jërëjëf. waa parcelle moo mën seen patron. du ñu dugg ci yooyu détail détail yi moo mën seen patron Modou Lo bi bàyyam deewee Balla Gaye dafa dem bi bàyyu Balla Gaye deewee Modou Lo dafa ñëw ay frère lañu ay détail yu xastante duñ ko fi def Balla Gaye mooy roi des arènes Modou Lo la nañu continuer carte gi rek ba ci kanam a kanam lépp dana leer mais xaste bi loolu nag jeex ci sud internet yi bye bye. mais mooy loolu. Ah. wax na lépp. mais jeex na wax nañ ba pare. waaw ah, léegi loolu yëpp bi ndax. non son fils ah. combat bi confiance bi nga amoon ba ne da ngay daan ñëw toog plateau ma loolu jaaxal na ma trop est-ce que loolu du gàllaaj. non du gàllaaj. Euh, wax naa la sama poney dafa liggéey wax naa la ko. liggéey nga ko tegoon. waaw ci liggéey xam nga kuy fort ci man xam nga ne mën nga daan ko dara Balla Gaye numéro 2 mayu dara fils de Balla daf koy entraînement noo ba mu xoox ah, ñoo bokk préparé ndoo combat bi daf koy entraînement ba mu xoox lii la ko bëggaloon